فزا ولإله أنجز سبيلا ملك ربي مالكي كل يتيم له كعملي رؤيتي رجت بالله وبالرسول من قال خطوة تزولي yàlla na ci yàlla na ci wér topp yaa jig faas yaa faas macha allah macha allah aada xoolal doxal ca kaw yal na la yàlla musal ci cat bët làmmiñ wax coow barke mu xam ne lii lii xoolal faas ñëpp dem nañ yaa fi des góorgóorlul yal na yàlla gën a defal say mbir lii man ci xoola as kii uuf doom bi ñoo bokk benn groupe fii ci bi maa yëgle xew bi te xamoo ci dara aada ñi lay jàppale ci suuf xale faas yow rek la ñu gëm la yàlla bàyyeeg ñoom te yàlla bu seytaane dugg seen diggante barki Seydina Mouhamed papa doxalal Thank you. ëllëg Thank you. Anlatabiliyor muyum? ku nekk ci gàtt bi mën na commencé bismillah tu tàkk bi tuddee nañ ko nday xari gasam yàlla nañ ko ci ñaan ko ñaanoo ko suñu yaay suñu mbokk wala doom bi ko mos a indil wala mos a jiitu ci kanamam mu koy ñaanal lan koy njëkk a wax bu dee góor bu dee jigéen bu fekkee góor la mu góoral ko bu fekkee jigéen la mu jigéenal yàlla dogal na ci jigéen la ñu tuddee ko xari xari yëpp. moom mu nga xam ne xam yëpp ñoom turandoom lañu mooy ki nga xam ne mu dëgëraloon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te bam ko ci xaar bi laal ba muy wax sàmm yi di sàmm yi ñu des ñu des ñu ne moo moo ko waxoon lan yëpp si tam quoi. jëmm moom ngeen ko tuddee yal na turu ñoo bi ndaw nga yëg ci moom xam ne yëpp xel mi lañ bàyyi ko kon ñaan nga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan mooy Allah wax ka nii ma tëddee la imata walayati yal na ko yàlla def bu nopp yal na doon mag mu tedd yal na doon mag moom njëriñ yal na bu mu doon mag mu ñuy yëpp yal na bu mu nekk ci yal na fekkee njëriñ yëpp fekkee njëriñam yal nañ ci bokk mbokk yi ñu wax leen ay kàddu yu gàtt rek ndax mën a ñàkk ndax yàlla moom fi dajal lii ñu di def nii ñetti yëf lañ ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyee moom kott dal xalima Mustafa bàyyee yokk ci dara dafa waxal boppam ne nazaafatuhu kulli min ad-dar mutahhara wa sunnatuhu insha rabbi yubayyin loolu la wax yoon bi Rasulullah bàyyi woon fii dana ko fitiki ba mu leer nañ loolu la wax ñett yëf yooyu mooy ban mooy nañ ko war kon seet yow mii mooy ginnaaw soo jógee ñu ngi leen kawar bi te tam ci weesu ci ñi nga xam ne dañuy tëb sa xaalis ci weesu la ko xam koor ñaata koor ak ñoom daal nit ñaar day loolu koor si nga ko xam. nga seet koor ak xaalis mbaa koor bu mus mbaa bu koor sa doole taw jëpp ko muy jar fii ci Sénégal nga jël loola saraxee ko ko moom jiw. kawar bi buñ ko denc fenn buñ ko takk fenn nañ ko gas ci suuf ci suuf nañ ko jënd suuf la dafa pour kawar gi. demoon ci suuf ndax ba mu ba mu njëkkee nag dafa am lu tax dana defar à la kon kaw yi dañ koy verser ba ca topp mooy dañ ko tuddati bu rafet tuddee dañ ko tudd bu rafet te li mu naan tudd du tool waaw mu ko gën a rafet. nañ ko koy wooyee. fexe ba ñu bàyyi. naa ko Ndeye la Ndeye doomu Ndeye wax xarit loolu moo ci topp mooy rendi ko ab gàtt gàtt booba kenn du ci fay noor kenn du ci jaay kenn du ci leble moo des na cee maye moo des na cee saaxe moo des naa topp lépp moo des naa topp gi ñëw ci li ci des ñett yooyu respecté la demande la ca def nag mooy ñu xam ko bu baax a baax moo demee nii lañ toog ndax mooy ko kenn daanaka mënoo tax naa am ko ca yàlla dugg ko. donc yàlla Sakariya alayhi salaam yàlla yónni na ko ñii nee nañu ba mu nekk xale bu tuuti la ko yàlla yónni ñii nee nañu ba mu am ñeenti kenn. waaye ñu dund wax téeméeri at di ñaan yàlla lu taw yàlla te néew ko. baykat yàlla yëngu ci moom nekkoon lu tax mënu la désespéré ci lii ñu ñaan boobu léegi. balaa tënk ko tamit ba indi ko laaj ko fi ñu la am bu ko bàyyee. yàlla ne ko kon dina la koy doon mooy ko doon mu dafay xel kon doom yomb. lu mu bari bari bari bari doom yomb. dëgg la ku am kuréel. na lam cee def na ko tuddee ak sa bopp dañu sakatulaa lii dana am su ngeen ma santee fi ma leen defal ci xéwal na dara koy ko yàlla kon lépp lépp lu ngeen di def na ngeen ko def ak sant seen borom waaye bu ngeen bu ngeen góorgóorlu ba moytu def loo xam ne bokk ci ñu ne seen borom sant kii tey su wëñ ñu dal mënoon a añal waa Fass gépp leeral leen fan ak ñaar weer du tax mukk sant ba mu war a sant boromam mu mat sëkk waaye yàlla li mu wax dëgg la kon loolu ñu ci def lu nekk nekk tuddee ak sant suñu borom ndax sant ci la yokk nekk ci xarab la wàññeeku ne kon nañ ko sant suñu borom kon jaamu yàlla ñu loolu da ngeen góorgóorlu da ngeen dugg si dugg ci dara ndax yàlla nga ci boole mu leen ci kon daal sama cër la ma la la ma ci war danaa leen ko wax ci daal di daal seen yaar nga jël benn tas bu teg ko jël xaru safara dugal ci biir muy tàkk ma ca kon soo xasee wax